Euh, ñi nga xam ne ñu ngi ci euh, political arena bi xamee nañ ko euh, parti bi APRC waaye nag jamono ji xibaar ñëw na ne paay bu daal dina taxaw ci li nga xam ne loolu moom mooy élection ni député yi no matter what happens ba pare dina taxaw onda li nga xam ne loolu moom mooy independent ticket paay bu thank you very much ci time bi appreciate nañ ko bu baax a baax paay bu ñu ne confirm nga digga digga di nga taxaw Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, maa ngi nuyu everybody euh pa uh, uh, di nuyu sa kat yi ñoo xamna ne ñoo la di deglu ci si biir dikka bi fi muy gambia ak ci bitim réew comme lacte boma lacte rek moy ne ndax digga diga dina taw independent mene la ne pa fak na ne ci suba lacte won nga ma hmm. lolu te confirm na ko ci yone inshallah insha allah uh, independent ci sobe ya again pa gaa yëpp APRC la di xamee ñu uh, ne ndax um, nga taxaw independent wanewul ne mais bi am na issues yi nga xam ne yooyu moo xew uh, ak yu demee noonu. Uh, for me, I don't think so. There is an issue. Yeguma uh, ben issue will happen. Man, mm. my problem is like ne dama feel ne mm. come political parties. Ah, si dëkk lañ nekk hmm. waaye fiil naa tamit consequences they are bigger than the political parties yu nekk si consequence boobu noonu hmm. so the most important thing mooy ne ah, waa consequence bi lan la gaay bugga hmm. ak kan lañ bugga is the most important thing so ne su nekkee ne man ah, comme ndaw laa ma toog suma waa dëkk waa consequence ñëw si man they are not even in politics mm-hmm. ah, ñu ne ma ne Paa wala Ibrahima yoo lañ bëgg pour nga represent ñu si ah, néegi député ah, ma ne leen de ngeen xaar because que political party laa nekk moo waxtaan ak ñooñu moo waxtaanee ak ñooñu ñooñu tamit di endorse it ñu ne ma ne fine waaye xam nga ne am na ko fi tooga ma I find fine understand naa is not about the need a ko moom place bi. Mm-hmm. is about dëkk bi mooy conséquence ba moom mm-hmm. so everybody koo xam ne si dëkk bi nga you have all right pour nga ut su nekkee ne bugga nga wala nii suñ la approché ñu ne ne nañ pour nga taxawal ñu so bu ma leen ko have. ñoom daañu ne ok we see lan mooy xapoon. but at the end of the day finally gis nañ ne the NPP as far as they are in coalition with APRC uh, ñu dégg ne ñu ne président Barrow mu ne uh, ñoo xam ne la ne ñu la ñooñu ñoo jógee UDP to NPP pour ñu bàyyi leen fa waaye man I feel ne it's fair enough pour président Barrow wax loolu because man dama ku ma dimbale at the end of the day yow daal soo buggee even though su nekkee ne people don't want you man dinaa wax ne ah dimbale leen ko because daf ma dimbale woon. Mm-hmm. waaye the most fair thing moo nekk ni ay believe ne lii du loo xam ne la place bi du place boo xam ne la ne ah dañoo compensate ay nit. Ah, I feel ne compensation da ko def si place boo xam ne la ne lu waa jox na la doole pour nga na foofu noonu yooyu yaay taana nekkul ne nit yi ñooy sànni kar so that's why ñu feel ne place bi dafa war a nekk place boo xam ne la ne. Euh, dañ war a seet majorité bi lan lañ wax mhm. o majorité bi lan lañ bugga leen muy góofalaat Paa bu Sonko nag euh, dina taxaw euh, ci li nga xam ne loolu moom mooy Tallinding constituency bi Tallinding constituency bi paa bu in politics nag dafa am ñi nga xam ne dañ dee lobby ak ñeneen yi dañ dee persuade ay nit maanaam wécci seen xalaat pour rek ñu ànd ak xalaat yi opposing xalaat buga gaay ñu ne ndax. Because in politics, you don't rule out anything. You ne ndax um, offer xaalis promise of position which is a position yi taxaw uh, pa man dama feel ne am in politics ba pare ndaw la mm. always dama ko dee faral di wax mm-hmm. ma su nekkee ne an offer ñëw na boo xam ne jël naa ko that's the end of me in politics mm-hmm. uh, because uh, nit ñoo xam ne ñoom ñoo la approach pour nga taxaw uh, nga jox leen di go ahead already mm-hmm. at the end of the day ñu am yaakaar ne dangaa taxaw nga dem last minute keneen ñëw offer la dara das mean ne yow gisuloo woon sa conséquence gisuloo mm-hmm. woon sa nit yi yow loo gisoon rek mooy sa poos so because of that man I said ne I don't think so ne there is any offer boo xam ne mun na maa yóbbu now because uh, man I feel ne uh, lan moma ma gina gën a proud ne I feel ne ma nge ma feel ma ma ma ma ma ya, lifin my consequence ma uh, taxawalal suma nit yi mm -hmm. so man lo moo dee nekk suma pride mm -hmm. so obviously I don't see anything lo xamna ne la ne mun nañ mako ko offer lu wara tax comme ma baye suma nit yi luñ bugga pour ma def mm -hmm. yes ok um, legi nak ñu uh, dugga uh, ci waxtaan bi um, gëna leral uh, Euh, ñu ne kan mooy Pa Ebou Sonko. Euh, pa sonk euh, ndaw la boo xam ne la ne judoo Talinding yeroo Talinding ba fu mu toll nii mu ngi toog Talinding. Mm-hmm. foog ma ne mus naa génn outside Talinding ba pare ma nekk ndaw boo xam ne la ne within Talinding. all sectors dama liggéey ak gaay mm-hmm. liggéey naa ak suma ay maam si ay faana because xal ndaw la boo xam ne dama dee mun go with everybody Euh, ma jógee foofu noonu mun naa wax ne liggéey naa ak suma ay papa because euh, there are yoo xam ne committee yooyu noonu man rek a fa nekk ndaw mm-hmm. si dëkk bi euh, ma jógee foofu tamit liggéey ak suma ay morom te suma biir morom yi tamit definitely if you ñu ma xam dañ laa wax ne montagne comme lii da la nekk mm-hmm. liggéey naa ak suma raka yi maa ngi liggéey ak jigéen yi ak ndaw yi di liggéey ak everybody ñoo xam ne ñu ngi tali ni def nag Pa Ebou euh, in 2017 mm, yàlla dugal ko si politique nag politique boobu noonu yala def ma taxaw man maa taxawoon in 2017. Mm-hmm. Euh, ci tiggati APRC euh, bu ma taxawee foofu noonu yàlla def nag mu jox Fatoumatta ndam bi ñun ñëpp ñu congratulate ko gis na yàlla moo ko jox. ak nu mun a demee ñu gëm ne yàlla moo ko jox waaye si kaw loolu nag tamit tooguñ because ñun APRC yi lañ gis ak Talinding lañ gis mm-hmm. so ñu toppa si politique bi nag di dem ba yàlla def nag uh, because dex officers daf dee nekk uh, sitting NP yoo xam ne ñoom ñoo nekk ci parlement waaye KM uh, as far as amuñ ko fa APRC Euh, ñun ñu fa taxawoon ñu select ma as the dex officer euh, loolu moo ma qualified loo pour ma dem di national executive yi APRC mhm. fuñ dee fuñ dee fuñ dee decide everything mhm. so si kaw loolu noonu euh, dex officer tamit man am responsible politique yi KM within within executive bi ak nit yi ñoo xam ne ñoom ñoo nekk su kooku moo nekk ndaw boo xam ne tey uh, what consequence I'm not APRC alone, I can tell you pa, from today, even the NPP endorse Purumataho, Nyobuga Purumataho. loolu tax man dama ma futeeku ma gis na ne ndaw la waaye uh, kontaante la si man pour gis ne la ne uh, suma waadika xool ma ñu ne bugga nañ nga demalal ñu si néeg bu mag boobu noonu mm-hmm. ndaw la Eh, ñeneen ñu di ko dee ooyee Pa Ibu waaye officiel nii maam Ibrahima Sonko la. Mhm. Ibrahima Sonko euh, mooy officiel name waaye Pa Sonko euh, moom la ko gaañi gën a xamee june euh, naka la Sonko bi ñëwee Ibrahima nga tudda yees Sonko waaye Pa Ibu Pa Ibu Pa Ibu waaw xam nga kilifa so moso bi tamit da gis naa ne eh, soo ñu ne rek comme kilifa lañ dee jox tur boobu noonu mm-hmm. yàlla def nag man kilifa lañ ma tuddee kuñ ma tuddee ko kilifa la eh, paa bi la ñëwee waaye moom tamit foog naa ne moom tamit paa ibu lañ ko dañ ko dee mm-hmm. so that's why man tur boobu noonu noonu la ñëwee di ñu ma ooyee paa ibu waaye paa ibu boobu I think moom mooy Ibrahima rek so waaye paa bi mooy ne comme eh, kilifa daal mm-hmm. of course judo talending yaro talending mage talending belegi legi yaangi deka talending um, growing up in talending uh, those days um, time yi xale nga toog rek nga ne ah man de suma amoon doole de naa ko wécc in talending lan la woon at that time uh, pa man ku ma rek nga xam ne definitely uh, dama bugga pour liggéeyal ay suma nit mm-hmm. uh, ñun time boobu noonu buñ nekkee Talending suñ time yi xale euh, gis nañ ne Talending euh, access pour dugga biir Talending si biir mm-hmm. it was a nightmare problème la woon euh, dangaa gis ne dañ dee toog ñuy xalaat Talending naka la ñoo mën a amee access routes pour dugga suñ dëkk pour dem si biir naka Talending di gën a yaatoo dangaa gis ne ne because of loolu noonu dañ dee mën a toog di xalaat ñun naka la ñoo mun a ah defee Tallinding mu gën a am electricity naka la yoon yi di ñëwee ak yooyu noonu so lii daf dee mun a nekk suñu ay xalaat ñun temps boobu dañ dee mun a dem comme da ngaa gis ne ay pax ñuy fata ay pax yi. pour mm. nit yi mun a jaala ak yooyu noonu we did all those things in Tallinding. Mm. ñun suñ time yi xale. Mm. so lii dee ah things yoo xam naa ne dafa yàggoon a nekk si ñun. pour gis na ne Tallinding naka la moo développé. pa man. dama liggéey ak suma ay événement mhm. yes so you daal suñ ko jàppee ne daal euh, yoon yi daal soo ko xoolee euh, da nga ko dee bugg wécc bu baax a ñu ne euh, in 2017 nga fis lool ci politics bi ñu ndax time yi xale you know politics nekkoon na li nga xam ne I've don't cross sa mind bi and again soo xelaatee benn politicien nga ne dëgga dëgga kii moom suma role model la ci politics kan la uh, because Talinding tamit kër politician la because politician yu mag uh, dëkk nañ Talinding contest nañ elections upon elections win uh, big names really. Yes, hanga pa man uh, to be frank enough with you, uh, before 2017, uh, man walaan toog di xalaat ne dinaa nekk a politician. mm -hmm. waaye nag uh, du ma beete tamit su ma suma boppa yàlla dugal ma politics uh, because man naturally associated bi suma time bu ma doon dem school uh, I was a school prefect si school bi Muslim Senior Secondary School uh, ma jógee foofu noonu da ngaa gis ne time boobu noonu ñun dañuy am ay clubs comme the Peer Health the Young Riders, the Red Cross ak you know all most of these groups in the school. Mm-hmm. man dama fa dee nekk ba pare duma dee nekk nit koo xam ne dafa dee nekk si gannaaw dafa dee nekk uh, at least si executive bi laa dee bokk so since then ma gis naa ne euh, man comme dama am potential pour comme at least work with the people especially the young people so loolu tax su ma ñëwee ba gis suma boppa in 2017 in politics ma feel ne man euh, mun naa am yàlla dafa def naa ne comme I need to take this road moo nekk dama war a toppa politique bi so loolu tax euh, du ma nekk a surprise to say ne comme pas bu tey politicien la ko ku ma xam rek war naa xam ne ne Pa Ibou definitely always daf dee bëgg pour liggéeyal ay nit so lii mooy Pa Ibou comme laajte nga ma tamit euh, comme kan laa fii ne moo nekk ay role model suma role model si politique euh, loolu tax ma nee man before 2017 dama daan toog di xalaat yi fi politics mun naa ak yow on things ak matters ak yooyu noonu but definitely I hmm. don't have any role model mala wax ne definitely moo nekkoon role model in politics I don't I don't have that because time would duma daan xalaat politics hmm. yes okay time would run daan xalaat politics euh, boo duggee ci politics nag bay saas yàlla tey yan challenges nga identify ne bokk na si li nga xam ne moom moo nekk di disturb o sonal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ndaw ñi the young people euh, because you know politics issued politics yombut a euh, paaxa nga euh, ndaw yi in politics mm-hmm. euh, foog naa ne léegi muy xala ciñ sax moo nekk ne there is this concept ne politique pour mag yi la mm-hmm. mag yi ko akime ko sañ bopp mm-hmm. ne ñun ñoo amee politique bi te suñ toogee ba ñu ne ñun we are the future leaders of tomorrow foog naa ne tey la war a liggéey because man su ma nekkee ci at bu ma toll nii su nekkee I don't have any experience in politics you don't expect ne damaa dem ba mag may damaa nekk politicien kañ lay am di experience mm-hmm. so loolu that is important pour ñun ndaw yi ñu bokka si néeg boo xam ne décision yi foofu la di méegi fine baax na ñun ndaw yi suñ kilifa yi dañ ñu war a bokka si ñu ñoo méegalaa décisions waaye sometimes it's important to ñun suñ boppa ñu nekk si place yoo xam ne foofu lañ dee méegee décision because definitely ah, suñ problème ñun ndaw yi ñun ñoo ko war a gën a mun a xam because ñun ñoo ko nekk di ko face so that's why it's important pour ndaw yi ñu bokk si politique ndaw yi tamit lu nekk suñ problème moo nekk ne ah dem nañ bi am concept bii ne ah politique ñun politique yëfi soonalaate la wala yooyu noonu te soo seetee politique mooy yóbbu àdduna mooy yóbbu dëkk bi bu ko politiciens yi ñoom ñooy décide ñun lan la ñoo def it's only a politicien ku laa wax ne tey ten o'clock ngeen a tëdd ngeen tëdd ten o'clock because lu tax moo loolu noonu te kenn mënut a dugal ko fi ku dut di président <laughs> te di président is a politicien mm. so loolu tax da ngaa gis ne may ne politicien yi ñoom ñoo amee dëkk yi so loolu ñun yëpp dañu war a gis suñ boppa si politique waaye lii dafa nekk loo xam naa ne mindset boo xam naa ne nit yi dañ fiil ne politique sax time wasting la mm-hmm. te definitely we always sit at our vooz di wax ne waaw politicien yi ñoo tax maalo yi cher ñoo tax ñu fi nii cher waaye koo ne dugal si politique mu ne non So obviously, when you malo si sere, leneen su seere don't blame the politician mm-hmm. blame yourself mm-hmm. so limo faneka. I think ne fu neka nekka nii li moo nekka nii disturb ndaw yi in politics ah, ba pare other thing bo xam ne it disturbs people also moo nekka ne nit yi nu politics. defee politique mm-hmm. moo nekka tribal line bi Yeah, you understand ku nekka feel ne yow soo head bi yow head boobu nga war demalal ki feel ne hanga. lii are yoo xam ne ne is happening mm-hmm. ba pare I feel na youth si ñoom luñ dee gis always moo nekkaay they want this oneness ñoom it neen together te always dañ dee feel ne ok politique moom soo fa duggee rek léegi-léegi dang dee am ay noonoo ñu bari so waaye dat yëpp dem aside ay uh, feel ne politics definitely képp koo xam ne ne yaa ngi si dëkk ii da nga nekk ay waaye sa gémmiñ war nga ko dugal si politique because mooy yóbbu Oh, nga dëgga mu xewu réewa ñu um, ne um growing up in Talinding as a young man loo bëggoon a nekk an accountant you know, they have this big dream of being a professional footballer Euh, especially um, Gambia nu ñu demee nii si African Cup Nation bi ak things nu mu fa demee um, ñeneen ñi bëgg a nekk docteur journalist yow lan moo nekkoon li nga xam ne loolu daal ah dëgg dëgg da ngaa wax ne ah paay bu sonko di moom lii la bëgg a nekk oh, Ibrahima Sonko ñu bari gën ko xamee ci paay bu sonko moom lii la bëgg a nekk. ah pa man definitely man suma dream uh, because man in school dama commerce laa def mm. man suma dream moo nekk I want to be a businessman mm. uh, loolu tax man ah, immediately bu ma jeexalee school rek I joined the NYSS mm. that's the National Youth Service Scheme uh, when I joined the NYSS ma def six weeks training there bu ma defee this training because yàlla dafa def comme ok suma papa it's there xam naa ne sax mun na ma ko but I want to give chance to my uh, my my brothers ñoo xam ne ñoo nekk suuf plus suma po mun jàngal mm-hmm. I said ne non fu mu nekk nii man dama feel ne war naa suma papa. that's why I ma toogee ma dear this interview ne uh, NYSS ñu ngi jël ay nit pare ñu ngi I joined the NYSS ma def six weeks training at the end of the day uh, dañ def ay courses yoo xam dañ ko dee ay nit. Uh, bu ma dem foofu noonu dama bëggoon def uh, this thing computer hardware and maintenance loolu software and hardware maintenance la bëggoon a def so uh, bu ma demee foofu noonu nag ma am benn groupe bu fa ñëw ñëwee dañ bëggoon a teach people about entrepreneurship mm-hmm. ba pare man loolu was my dream because dama bëgg a nekk a businessman bu ñëwee noonu gars yi explain lañu fa nekk everything I have interest then ma dem ma study ko ma ko study thank God ba tey ci liggéey bu ma liggéey di nekk di liggéey nii ci loolu laa nekk di liggéey. Mm-hmm. after loolu nag tamit man ñëw ma def management I notched my certificate and diploma in management te foog naa ne as a today I'm working as a manager since 2010 to date. Mm-hmm. yes. Paa um, ñu dugal nag euh, ci li nga xam ne loolu moom mooy elections xam nañ ne neexut yow sax mos nga parce que taxaw nga euh, parti su taxawee sax ñu ne daf dee tane because di nga am mocca tuuti eh, waaye war a dem independent ñu ne eh, lu métti la lu difficult ñu ne pay bi fan la koppar bi di jógee pour eh, ngeen mun a finance li nga xam ne loolu mooy seen campagne bi xam nga in politics hmm. time bu dee naxaree pour nga am xaalis mooy suñ su nekkee yaa fal sa boppa hmm. wax nga nii suñ la rek nga gëm ne am nga mbooloo sa gannaaw Mm-hmm. <laughs> yëfi koppar du la day jaaxle dama gëm ne ñu nekk suma ganaaw mm-hmm. ku nekk su contribuer tuuti rek mm-hmm. whatever luñ bëgg a dinañ ko am te yàlla dafa def tamit nag man nit yi ñoo ma ñoo xam ne ne ñu ngi Tallinding dëkk fii ñoo xam ne waa Tallinding la ñu ngi si diaspora bi dañ endorse ma candidat ci ba pare ñu maa xool pour gis naa ne dañ bugg a ma taxaw kon loolu tax man yëfi funding du ma ko dee wax I know that even new tawalal party funding muma am guiding am. That one I have hundred percent believe in that. Mm -hmm. Funding muma am I believe ne bobu nyom dingo am. uh, politics yep strategy la. Mm am na koo xam ne ne am na ay millions to do politics. yow nga am certain thousand dollars yi yow certain dollars noo ko mun manage manager pour am the impact of the people pour nit yi understand because yep, mooy ne pour nit understand lan ngay wax nit yi mm-hmm. ak nit yi votal la mm-hmm. ñun mën nañoo am lu ndaw sax waaye suñ lu ndaw boobu noonu xam nañ nuñ ko usee pour mu mun a mu mun ñoo jox luñ bëgg si nit yi. Mhm. yes. pay bu am position yu bari nañ elected positions lan moo tax rek nga ngànka affaire yi député bi kansulo yaa ngi fi soo buggee dem mayoral amul problème ak yeneen place waaye yaa ngi ngànka mbiri député bi rek lan moo tax nga decide pour. Uh, stick with uh, this uh, député pa yes yàlla dafa def nag bu ma doon ñëw in politics dama ñëw si position boobu laa ñëwee te moom ma dugal loo in politics te tey man dama bokk si pati pati boobu noonu nag soo seetee kansulo am na kansulo yu fa nekk yoo xam ne ñun suñ pati ñoo ko te man ñooñu mënumaa xiccuwante ñoom dara si mm-hmm. dara mm-hmm. kon ñooñu suma ay xarit lañ mm-hmm. te ah, definitely ah, lu ñoo liggéey gis naa ko because man tey duma gis nit ku liggéey lu baax ma ñëw rek bugga koo jël si moom ne dama mun tamit bugga naa foofu noonu so ay feel na ñooñu lu ñu nekkay liggéey daf ma doy so I will not contest duma duma xalaatuma ko sax so nekka député nag dama feel ne ah, represent sa conséquence la so te man comme ni ma la ko waxee bu ñu door moo nekk ne man am proud to see ne maa ngi represent my people so loolu tamit tey ma téye ne definitely Talinding dafa war a am ku leen represent te I feel ne am the best candidate for that mm-hmm. because dama ko defoon balaa tey di ñëw mm-hmm. so ku ma xam rek soo ko waxee paay bu dina la wax kooku nag he's the good candidate he's a good candidate mm-hmm. soo ko ko joxee definitely xam nañ ne mun na ko because mu ngi ko doon def before mm-hmm. today mm-hmm. so loolu tax ba tey maa ngi stick foofu noonu gis na ne I should represent my people at the National Assembly pay bu taxawoon nga ci uh, last uh, election yi yi yàlla def uh, winuloo um, ñu ne ndax ñàkk a win boobu noonu daf la gën a jàngal ci li nga xam ne loolu moom mooy politics and ndax da nga gëm ne ñàkk a boobu noonu daf la gën a jox chance maybe pour this time around li nga xam ne moo nekkoon sa ay wrongs ou sa ay mistakes along the way nga rectify ko. xam nga man ah, dama dee wax ne su ma dugg ci politique man ah, amul dara du ma see regret waaye lu tax ma wax loolu ah, su ci politique daf ma jàngal lu bari xamloo ma lu bari benn. mooy ne man before politics maa ngi doon liggéey ak waa Talinding waaye after bu ma duggee si politique nag ma réalise ne definitely am na loo xam ne soo ko buggee foog nga nekk ay politicien oo nga bootu ci gannaaw politicien yi pour nga am ko ba pare ñun uh, bu ñu taxawee in 2017 fooguma ne pare woon nañ bu ba pare because time boo xamuñ woon luy politique sax ñun nit yi ñooy ñoo téye di ñuy wax demal fii ñëwal fii waxal lii bul wax lii waaye foog naa ne en ce tuddee bi ko a suñ foos taxaw boobu noonu daf ñu jàngal loolu lu bëri won ñu ne politique foog nga am discipline. Mm-hmm. won ñu ne politique foog nga yëg nit yi soo buggee nit yi jox la luñ amee. Mm-hmm. soo lii yëpp jàngal nañ ko si suñ foos taxaw bi te foog naa ne within the line am na lu bëri luñ si liggéey. that fue Roma talending. Ngana na paibu. Ñu wala negatives about paibu. Wama du am nak go doomi adam mom lolu mun la ko am. Mm-hmm. Waye xam na we have worked a lot towards lolu non. Mm-hmm. So loda taxaw bele baaxoon na si ñun torop. Mm-hmm. because daf ñu jàngal loolu bari. yes. paibu um, waa Talending uh, suñ la óoloo dénk la li nga xam ne loolu moom mooy lengay lan lu different ngay offer gaay maanaam lan lu nduroowut comme ñu ne lan lu bokkut safin comme ñu ne cin bokkut safin hmm. euh, lan lu different ngay offer the people of Talinding xam nga most important thing euh, mooy ne nit ki lum moom o lum dinka mu gis si boppam hmm. the different thing lu may def moo nekka ne dama make sure Talinding yëpp gis seen bopp ci office boobu noonu wala ka leen di yëpp yëg ne hey ñun digga digga ñun am na ku ñu nekk di représenter at di national assembly mm-hmm. because loolu dafa important loolu daal always dama ko dee faral di wax ma ne benn nit mënut a xam lépp mm-hmm. ku la ne man yëpp laa xam daf laa na te addi national assembly luñ gëm ne moo fa dee nekk moo nekk di debates la bills ñëw ak yooyu noonu te ku la yow man youth secteur bi lu fa nekk yëpp xam naa ko women secteur bi du fa nekk yëpp xam naa ko lii yëpp xam naa ko daf laa na te at di national assembly dañ gëm ne whatever topic suñ faa discuss dañ leen dee jox prior before ngeen koo discuss te nekkul ne yow loo fokk rek moo ko rek mhm. because ay nit la yónni foofu noonu mhm. yow kaddu bay demaal mooy ñooñu seen kaddu mhm. so ñun dañ gëm ne différence bu ñoo indi mooy suñ ne eh, day sa bill o oh, am na loo xam ne dañ koo dibiit loo xam ne dafa concerne yëfi jigéen wala jigéen ñi la moo concerne ñu ne suñu office dina make sure ne all the stakeholders si jigéen ñu nekk Talinding ñun will have prior discussion with them mm-hmm. te normally ñun dinañ leen wax ñun luñ téye lan mooy suñu stand mm-hmm. ñu déglu leen seen stand mm-hmm. whatever the majority said ñun loolu la ñoo demalal di wax ne ñun de suñ gaay ñu ne lii ak lii ak lii waaye what we are seeing as at now mooy ne ah, suñ ne day sa debate at the National Assembly MPs will just go ñoom luñ xalaat rek ñu wax loolu even su nekkee ñoom seen xalaat udee na ak majority of their consequences seen xalaat mm-hmm. so loolu ñu ngi koo gis tamit so loolu tax ñu ne ñun différence bu ñoo indi mooy dinañ make sure ne waa talin Tallinding uh, dinañ gis seen bopp at di National Assembly suñ toogee rek dinañ xam ne defe na li ñun am nañ koo xam naa ne mu ngi ñoo represent at di National Assembly waaye xam nañ ne nag um, député amul kees xam nañ ne euh, yenn yi nga xam ne maybe every politician bu gën a koo def euh, waaye da nga gis ne càng-càng xaalis daf day am maanaam député daal amul kees bu moo tiba di def ay big time projects waaye nag ñu ne tam warta tere euh, député tam bu yokka loxoom ci li nga xam ne mooy jëm kanami askan bi ñu ne pay bu yan problems nga identify ne yii moom dëgga dëgga su ma ñëwee naa work with partners interlending ñu address ko no matter what happens ah uh, thank you pa xam nga mm, soo ñun africa fii mhm. xam nga nit yi lañ lañ gëna soxla moy yëg-yëg mhm. nga yëg leen -hmm. soo leen jox dee xaar soo leen yëgee sax nga respect rek rek jeex na leen moom uh, loolu tax ñun euh, dañ dee wax ne ne nit ki nag sa yéene ngay am ne lii dama ko bugg def fii dama ko bugg a talit fii dama fa bugg def pompe fii dama fa bugg a def lii waaye nag pour loolu yëpp mu mun a mut mhm. yàlla moo ko dee dogal so but the most important thing mooy ne nit yi war nañoo gis ci yow tamit ne kii de bëgg naa def lii mhm. because there are times at the National Assembly ku nekk di nga jóg nga wax sa problème et conséquence il faut tool ne di people of Tallinn toog nañ di seetaan télé ñu gis na ne ah ñu de suñu honorable bi tey dégg nañ muy wax ne Tallinn Colobane foofu noonu ndox bi nu mu fa dee taxawee xam nga ministry of works daf si def war a def A B and C gis nañ ne tali si sikap lii yoon bi xam nga access road bi dafa yaaxu wala tali liñ boor bi ndox amu fa dangaa gis ne ñooñu noonu even though su nekkee ne di central government bi di haven't done it ñooñu dinañ yëg na ne ah ñun de suñ MP bi mu ñoo faytal pour gis ne lii mooy suñ problème suñ problème boobu noonu naka la moo solve mm-hmm. te ba pare as an MP dang di am certain opportunities mooy uh, ne respect bi dafa dee nekk benn te mun ngaa lobby from even outside the government mm-hmm. because léegi léegi am na yu sew yoo xam ne ne dafa dee mun a nekk so da ngaa gis ne ñun we said ne ne definitely we know ne liggéey MP not ne comme ñëw liggéey tali wala ñëw liggéey pom dugal pompe wala indi courant ak yooyu we we wii doon seene loolu mooy liggéey life waaye fiil nañ ne tamit MP bi war na moo mun a liggéey ak councilor sami pour gis na certain developments muy mun a am waaye su nekkee we have MPs yoo xam naa ne they don't even want to work with their councilors they don't want to know councilors yi luñ nekka di face because tey soo nekkee an MP kii nekka a councilor nga am issue boo xam naa ne ministre moo la ko war a fay wala PAMSEC moo la ko war a fajal mm-hmm. going with the councilor yow MP bi ak councilor bi will bring more weight pour loo leen bugga ngeen am ko pour seen place waaye su nekkee councilor dafa demal a boppam député bi demal a boppam wala député bi du dem at all councilor bi rek la moo bàyyi pour mu dem at the end of the day difficulties dafa mun a nekk mm. so loolu tax ñu ne public office boobu noonu muy office MP dafa am rôle boo xam ne la ne is even more than comme constitution bi rôle bu mu ko jox ne loolu la war a play so lii moo fa nekk yëg-yëg bi war na faa nekk suñ nit yi amee seen baane war nañoo am baane boo noonu ak ñun suñ amee seen ñaari war nañ koo bokk ak gaay so this are the things yoo xam ne nit yi loolu lañ gën a soxla mm-hmm. war nañoo mën a gis nga leen naa faytal whatever loo xam ne because loolu lañ la fa yóbbu capital eh, eh, suñ eh, naka laa ko oyaatee moo nekk ne ah, whatever su ñoo defar budget bi yow taw yu si loo xam ne loolu nga fiil ne loolu moo war a am so trou loolu noonu la rek central government bi mun a développer pour naka yoo sa side ak side li keneen ak Gambia yëpp naka la mun a développer so lii moo tax ne is important pour ñu yow foofu noonu ay nit ñoo xam ne la ne ñoom mun nañoo xija indi seen boor yi bu thank you very much ah, ci ah, time bi appreciate nañ ko bu baax a baax xam naa ne euh, nañ jël time out euh, sa manifesto bi su euh, ñu waxtaan si toj ko bu baax a baax pour ñëpp mun ko dégg but Paa bu thank you very much ci time bi Paa bu Sonko Ibrahima Sonko nag mooy real Trump waaye Paa bu Sonko la ko gaay gën a moom nag ci parti bi si la bokk waaye mi ngi taxaw independent ndax lii taxaw yow nga taxaw independent dafa miin ne léegi daal yaa ngay bàyyi parti bi APRC non. man ah, bàyyi ma pati apiage yi hmm. ah dafa nduni rek ah, man ak ñu jël di décision suñ xalaat yaa uti hmm. ñoom dañ fiil ne hmm. ah, Barrow is the président mooy suñ président ñun ñëpp loolu moom definitely mooy suñ président man ma fiil ne Barrow mooy suñ président waaye ci suñ ni député dafa war a based on waa Talinding lan lañ bugga so su nekkee ne nag ah, some of the people dañ ne kii lañ bugga mhm. ñeneen ñu ne kii lañ bugga mhm. kon ñun yëpp ñu dem si race bi mhm. majorité bi ku ñu wax ne kii lañ bugga ku ñu votal ñu xam ne kooku lañ votal so loolu moo fa nekka but man I don't think so ne man am still APRC ah ba xanaa su nekkee ne APRC génne nañ because of dem naa independent ñooy dañ ma daax waaye as far as daaxuñ ma man am still APRC xalaat la yaa ute ñoom gisee nañ ko nii man gisee naa ko nii because lu ma gën a gis moo nekk ne the interest of Talending okay. not only the interest of APRC or any other party mm -hmm. but the interest of my community that's the eh, that's the people of Talending Pay bu Sonko jërëjëf Pay bu loo am pour dénku ah, waa Talending and thank you very much ci time bi ah, appreciate nañ ko bu baax a baax jox ñu 32 minutes already so jërëjëf Pay Ah, thank you very much pa ah, lu ma di la jaajëfal rek ah, ba pare di dénku lu ma dénku waa Tallinding rek moo nekk ne angum ñu ma gis mm-hmm. ñu taxaw ñooy leen bëgg place bi man dama fiil man lu ma def defuñ ko gëm naa ne suñ ma joxee place bi lu ma mun a fight gëm naa ne mënuñ koo fight mm-hmm. so I feel ne the best candidate for that position. So I'm urging everybody koo xam ne ne talindi nga nekk ñëpp maa ngi leen a urge di leen di leen wax ne at the day of the election let them vote for me because insha if they vote for me su soobee yàlla duñ ko regret loolu laay diñ ko waa talinding di everybody say ñaan pour ñu ñaanal ma rek luy suñ jaama si li yàlla defaral ñu loolu ba pare di jaajëfal ñu ma nekk di àndal mhm. ah, suma campaign team bi I have a very strong campaign team bugguma koo disclose as at now sax because mhm. mun naa am soo disclosé rek ñu dem stade di leen dem toppa because man xam naa kenn mënut maa convince mhm. waaye ragal naa nag ah, su ma leen disclosé mun nañoo dem di toppa ñu you know but I can tell you Pa I have a very solid campaign team from the youth yoo xam they are not even in politique ñooñu mosu ñoo bokk ci politique gis naa ay mag yoo xam ne ñooñu mosu ñoo wax ci politique gis ay jigéen yoo xam ne mosu ñoo wax ci politique paa ay half suma campaign team bi am naa fa UDP am naa fa NPP am naa fa people ñoo xam ne nekkuñ ci politique am naa fa nit yi ñoo xam ne ci PPP lañ nekk I can tell you this thing Why? when the day comes kenn du ko wax kenn dinañ ko gisal suñ bopp. lii laa am pour dénku waa Tallinding euh, di leen wax ne sañ doom la euh, Pa Ibu Sonko euh, Ibrahima Sonko commonly known as Pa Ibu mhm. seen doom seen raka moo leen a ñaan seen karta mhm. pour bés bi su ñëwee ngeen jox ko seen karta pour mu dem représenté leen